asalaamaaleykum mbokki safo GP TV Sénégal amal nañu mbégte ak contentement bu baax a baax toogaat ak yéen tey nag ñu ngi fi seet si ki nga xamante ni xëy na kenn dootu ko présenté kenn fii si Tivaouane rawatina sax Sénégal lay wax na te Pape ñëpp xam nañ ko doon koo xamante ni ku jege mu le maire loolu la te nag ñu seet si ko ngi bëgg a waxtaan moom waxtaan bu amu am solo ndax ku ne xam na ni jamono ji politique gu xaw naa ñaaw waaw te buñ ko seetsee moom waxtaan ak moom xay na gina am ay leeral yoo xamante ni gina ko indi waaye xëy na gina am loo xamante ni gina ko wax askanu Tivaouane Pape lu bàyyi la nga nuyoo dañuy suivre GP TV Sénégal ak say soppe. Ah, salaamaaleykum wa rahmatulah. damay wax auzu billaahi maa ngi nuyu Tivaouane gépp du nuyu waa GPS TV ñi nga xamante ne tey ñoom laa jàkkaarloo ah, di nuyu senegal di nuyu sama mentor ci politique muy monsieur le maire Demba Diop si euh, du nuyu bépp citoyen boo xamante ni yaa ngi suivre euh, GFS TV maa ngi nuyu Tivaouane gépp mm-hmm. macha allah Pape la ñu tàmbali waxtaan bi sa diggante ak Diop si euh, naka la demee sa diggante ak Diop si tamit seen ànd bi fan la commencé si tënk rek mu gàtt. Ah, sama diggante ak Diop si li may wax rek Tivaouane moo ñu boole. parce que dafa ñëw ni Tivaouane na ko ñëw dafa Tivaouane na ko ñëw depuis 2012 ba léegi maa ngi ànd ak moom ma gis nii lépp li ma waxoon nii ni Tivaouane moo ko ñëw Tivaouane la bëgg depuis 2012 ba léegi heure bu xëy day gën a yokk moom moo ci moom ba dem na léegi nekkatul leader politique waajur la sama kilifa la sama waajur la sama lépp la waaw sama diggante moom politique depuis 2012 ba léegi bu ñëwee wax ni Tivaouane daal moo ko tax a jóg Tivaouane na ko ñor Tiwaawan baax moo ko tax a jóg maa ngi ànd ak moom boobu ba léegi te dara yàqu ci. macha allah gis nga ànd ak moom boobu ba léegi euh, yàlla dogal mu doon xëccoo maire Tiwaawan jox ko ko tey jii nii si maire maa ngi ànd moom du doon yàlla dogal te yàlla teg ko ci loxoom euh, muy jàppale muy muy muy waaw population Tiwaawan gépp jàpp ci ba yàlla dogal tey mu tegu si ay loxoom. ah bu ñu ko bi ko yàlla tegee si ay loxoom nag ñëw def ma attaché de cabinet def ma porosam ñoo fa ma dem maa yow ñooy ànd ma nekk si wetam di ko jàppale. macha allah Pape am na solo Pape loolu lépp am na ñu gis tamit politique gu euh, Tivaouane jamono ji mu mel dafa xaw a euh, doy waar si gis nañu président Macky Sall dafa doon ñëw fan yii passé ak bi nga xamante ni doon na ko ñëw Thiès Thiès bi euh, nga ànd ak Diop si. ak leader yi nekk Tivaouane yëpp def mobilisation mobilisation bu am am solo dem mu teeloo ki nga xamante ni moom président Macky Sall ñu waan ko tamit Tivaouane def ko la même chose mais Tivaouane buñ dikkee mu mel dafa am loo xamante ni xëy na dafa ñaaw ba ñëpp di ko ñaawlu muy li nga xamante ni xëy na yéen ngeen ko def si wax nit ñi muy da ngeen a organiser ba pare xatal nit ñi ba pare nangu waleen kenn dugg si tànt bi teewal président Macky Sall ñu bëgg a xam loolu tey bu doon dikk di indi alléeral si loolu rek nga ñuy wax. waaw question boobu dina ma neex trop parce que li may wax rek fii amul dara lu fi ñaaw euh, Tivaouane ñëpp a ko bokk Diop si yàlla dogal na tey moom moo jiitu moom moo nekk ci boppu dëkk bi nekk maire Tivaouane mu xam loolu nag xam yàlla ko jox mu woo ñëpp ci jàmm ni leen ñëw leen ñu ànd liggéey depuis boobu ba léegi discours am noonu la koy doxalee noonu lay jëfee. xam nga li may li may wax rek am na loo xamante ni ku nekkul si biir wala ku nekk si wetam la doo ko xam mais fii depuis Thiès avant avant Thiès sax yàlla dogal ñu ngi nekk si jàmm muy maa ngi nuyu di féliciter ñoom tamit muy le président Abdoulaye Ndiaye Ngalgou di féliciter Diagne ci Meng di féliciter Abdou Ndéné Sall di féliciter bépp politicien bi nekk ci Tivaouane parce que gis nañ leen muy bi ñuy dem Thiès ak Tivaouane yëpp taxawaay bu ñu am ci ginnaaw président de la république muy le président Macky Sall xam ni moom moo soxla ñoom ñëpp ñu jóg di ko jàppale nekk seen ginnaaw ah, may wax benn affaire nag loolu rek laa bëggoon wax mooy am na ñoo xamante ni bu ñu yàq gis nga nit bu tolloo si defar dafay defar jóob si du def lu ñaaw du wax lu ñaaw Ablaye Ndiaye Ngalu xameelu ma ko lu ñaaw gisuma mu jëf lu ñaaw jaan si mee même chose fii ñoom ñoo bokk ñuy wut fi mu toll kenn rek moo soxla mooy le président de si xam na loolu jaan ci xam na loolu Ablaye Ndiaye Ngalu xam na loolu kon dama bëgg ñi nga xamante ni ñun ñoo topp seen ginnaaw ñu rafetal suuf damay wax diggante ab Ablaye Ndiaye Ngalgou ak diggante jóob si lu rafet rek moo si am bi yàlla dogalee ba jóob si yoon mairie bi boobu ba léegi ñu ngi seq lu baax di seq ay teraanga di waxante lu baax kon am na loo xamante li fi aw bët ki démb du dara man li ñuy wax sax gisuma lu fi am xëy na nag am na ñoo xamante seen xol fees na ñu génn wax mais damay jàpp ni seen xol fees na parce que amul lu fi am di wax waa Tivaouane gépp ni ma Jóob si mi ma xam amul lenn loo xamante ni mi ngi koy téyel nit su lu ñaawal dara Ablaye Ndiaye moom tamit même chose bi ma xam jaan si mi même chose kon may wax nit ñi am na loo xam buñ ko dugal seen diggante fi mu toll nii li ñu war a def mooy ànd ñu dem élection président de la moom moo soxla 2024 ñu fexe jëlaat ndam ni jox ko di wax nag ñëpp ni leen fii amul leen lu fi am xam nga yéen journaliste si nag dama bëgg wax leen dafa am loo xamante yéen a koy diaboliser te te te jaru ko fi parce que fii man gisuma lu fi am. waaw li fi am euh, tax na ñun wax la wuñ kenn mais li nga xamante ni euh, askan bi ñoo ko gis ñoo ko waxal seen bopp ku si mel ne Zoulou Macky Sall ne coow li dégg ngeen ay leader yoo xamante ni xëy na si ngal bu luñ féete. dem nañ ba tàng sax si li nga xam ne moo am ñu wax ni bu ngeen bëggee yéen ngeen dem si gatsa gatsa. te loolu loolu benn journaliste wax lu ko kenn. non non loolu loolu loolu loolu jàpp ay man yooyu du si tontu ay dem si ay gatsa gas yooyu du ma si tontu li ma lay wax daal Tivaouane du ñëpp ñoo fi dëkk te ñun ñëpp benn la tey ñun ñëpp ñooy bokk les fréquentation bu subaa ñooy nekk nanga ma kon am na loo xamante ni man du ma si tontu li may mën a wax daal mooy am na loo xamante ni ñun ñëpp benn la. te ay gatsa gats yooyu du ay wax. te tamit aussi euh, adjoint maire tamit génn te moom tamit li mu wax xëy na euh, dëggal na problème bi ñuy wax ak coow li ñuy wax am na. te dëggal na tamit si euh, maa maa ngi koy maa ngi koy nuyu Mame Ngouda Taxa di ko féliciter moom tamit taxawaay bi am ci dëkk bi jàmbaar la lool ci teewam jàmbaar la ci dëkk bi maa ngi koy féliciter mais Mame Ngouda sama mag la sama xarit la yàlla xam na xaw ma sax déglu ma sax loolu ngay wax. te maam Ngouda moom musuma ko gis mu wax lu ñaaw musuma ko gis mu def lu ñaaw lu rafet laa xam ci moom moo tax kon lu ma xam ne déglu ma ko seetlu ma ko du ma ko tontu franchement parle moom xamuluma ko dara maam Ngouda ba ma xam ba léegi kuy wax kuy defar la kuy wax lu rafet la kuy wax lu du wax lu ñaaw mukk mosuma lu ñaaw kon ça veut dire si tontu quoi. waaw doo tontu si wax boobu mais tamit est-ce nga si li nga moo xew xew parce que dama mel day sa kàddu li ngay wax nii mooy d'accord li nga li nit ñi wax ni moo am amul. non man man man xam nga man xam nga man. te ku ñëw sa base ba da ngay gis. non non non non non monsieur le maire monsieur le maire amul droit téye kenn te xam naa lool loolu loolu nit ñoo koy jàppale di wax rek. monsieur le maire téewul kenn mënta tey kenn dugg si base man daal gis nga yooyu yëpp ay détails la man damay woo les politiciens yi nga xamante ni ñoo nekk si dëkk bi ak ñi nga xamante ni ñoo nekk seen ginnaaw ma xamal leen ni leen am na loo xamante ni xajul suñu ay diggante ñun ñoo bokk li ñu bëgg ñoo bokk ki ñuy wutal kon réeroo wala ŋaayoo xajul suñu diggante di woo jeunesse su Abdoulaye Ndiaye Ngalgou di woo jeunesse su Diagne Sy Mbengue di woo jeunesse su muy Diop Sy na ñëpp taxaw nekk benn parce que am na loo xamante ni buñ ko defee rek après day métti si ñun. maa ngi woo ñëpp ni leen nan nekk benn di xàccandoo di dóorandoo bañ ñu réeroo ba ñu déglu kenn buñ déglu kenn koo xamante ni def ñuy jéem a fëyee la wala nangam ak nangam. mais Pape est ce mën a nekk dina mën a nekk ndaxte euh, wote woon ngeen nekk benn xëy na ñu bàyyi génn nañ wax ni seen bennoo googu na. Euh, politique la woon ne politique dafa jeex instant ku dellu si. non fii amul lu fiy jeex benn bi laa preuve en effet ñëpp benn lañu Abdoulaye Ndiaye Ndandou loolu lay taxaw di wax Diop ci tamit loolu lay taxaw di wax loolu Dia ci loolu lay taxaw di wax fii amul lu ñuy wax te duñ ko doxal benn bi lépp benn la mën naa nekk parce que fii gisuma lu fi mënta nekk fii gisuma lu fi mënta nekk ñun ñu nag waa kër Abdoulaye Ndiaye Ndandou ñooy fréquenté ñu ne waa kër Dia ci nag ñooy fréquenté. kon lu fi lu fi jaral ba la nekk ay benn ay politique yi politique politique garaw ay politique warut a tax ñu mën a nekk benn fi ñëpp bennoo la ñooy ànd wuti ñooy ànd di am ndam. sa weer tey jii nii nga amoon booy lancé jeunesse bi ak waa Tivaouane bala nga message bi may ak waa man da xamal naa li ma xam mooy Diop Sy monsieur le maire li muy woote mooy fi mu toll nii politique wees na li am mooy ñëpp ànd ñëw ñu liggéey dafa Tivaouane. moom la woo si Diagne si Meng moom la woo Ablaye Ndiaye ngal la preuve en est que bu def woon loolu bët ki dem di jox Ablaye Ndiaye bétuwaat mu liggéey ko di ko jox Ablaye Ndiaye mu xam ne moom mu def Ablaye def benn la maa ngi li ma wax sànq laay waxaat rek maa ngi woo jeunesse su am defar di woo genesu su ci si di woo jeunesse su Diop si ñoom ñëpp nañu booloo nekk benn parce que loolu moo leen war mooy am beneen dina wax gis na ñoom ñi nga xamante ni ñun ñoo nekk seen ginnaaw ànd ak ñoom wu ñu xam na ni li ñuy def te te te ñoom ñëpp ñu ngi seq ay taraanga kon nag ñun mun ci nekk di def loo xamante ni après daf ñuy def daf leen di yàqal parce que tey ki ñuy wutee mooy le président Macky Sall lii nii lii nii nit ñi di wax loolu arrangé wu ko li ko arrangé mooy ñëpp nekk benn te ñun ñi nga xamante ni ñoom ñooy ànd ak ñoom di leen dimbali di leen jàppale ñun nekk benn. xàccandoo dóorandoo loolu lay am ñu may ñu may lancé. papa image bi nga xamante ni. nga koy partagé mu wër àdduna muy président Macky Sall ñu Tivaouane di wax mu vidde loolu kenn nekku fa euh, ban loolu looy wax si loolu. non loolu loolu loolu loolu loolu yow dama leen koy wax image yi yéen am ngeen ko yéen image yi yéen ñi ko yéen ñi xam ne am ngeen foofu viddul xam ngeen président Macky saal bi muy ñëw xam ngeen la fa nekk. xam ngeen foofu viddul. bi mu ñëw bi wax. non bi muy ñëw ak bi muy wax. Mm-hmm. bi muy bi muy bi muy bi muy wax Macky Sall nit ñi 15 heures lañ fa ñëw 15 heures toog fa 22 heures loolu dafa yàgg 15 heures ba 22 heures c'est normal am na ñoo xam dañuy taal ñu woon reer am ñoo xam seen reer euh, togguñu ko woon c'est normal. c'est normal yow yéen ñi fa nekkoon xam ngeen la fa nekk ci mbooloo nekkul sax Thiès. waaw la fa nekk ci mbooloo nekkul sax Thiès. looy tàggatoo mbokki Sénégal. waaw maa ngi leen di yéen di leen féliciter maa ngi gis liggéey bu am solo bi ngeen di def. mais dama leen di joxaat benn conseil mooy am na loo xamante ni gis nga nit da fexe di di di wane lu rafet rek mais bu leen wane lu ñaaw parce que amul njariñ di ngeen gis lu ñaaw sax ngeen tegee ko fële fexe mu wane lu rafet parce que moo am solo maa ngi gërëm Sénégal gépp di gërëm waa Tivaouane di leen ñaal yàlla ñun Tivaouane lañ am ñun Tivaouane lañ gënum lépp waaw di ñaan Tivaouane yàlla na fi yàlla def ndam. bépp jeune bi nga xamante ni wala bépp nit bi nga xamante ni mi ngi wut dara yal na ko yàlla yombalal euh, di féliciter les leaders yi nga xamante ni yëpp ñoo nekk si si si si benn Benno Bokk Yaakaar euh, ñu yor coalition yi parce que depuis boobu ba léegi maa ngi leen di gis ñu ngi def ay action di jàppale population yi kon loolu rek moom la moom moo leen war nekk si population bi di leen jàppale lépp lu ñu soxla lu ñu ci man ñu def ko te ñu ngi ci. di leen encourage ñu gën koo yokk di féliciter Abdoulaye Ndiaye gu nit ku baax la Tivaouane na ko ñor mi ngi dimbali waa Tivaouane mi ngi jàppale waa Tivaouane jaan ci mee nga même chose mu le maire Demba Diop si xam nga li ma koy wax rek Diop si dama naan ko li ma métti mooy am na ñoo xamante ne dañ laa comprendre gul parce que li ma xam ci moom yéene bi ma xam ci moom ak intention bi ma xam ak li ma xam li muy lijjanti pour Tivaouane dama naan ko bu la waa Tivaouane xamoon yow li ngay def